إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي الحمد لله رب العالمين mbokk julli di noo ngi màggal borom bi taala wa tabaarak di ko gërëm di ko bàkk di ñaan mu jéggal ñu suñuy rëcc rëcc ki suñuy njuumte noo ngi julli tey selmal ci ar rasulu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal jàmm moom ak i sahabaam ak taabiina lahu bi ihsanin ila yawmi din mbokk jullit ñi sunu xutba tey incha allah mi ngi tënku ci faadanu bi xarbin min allahi wa rasulih te loolu mooy waajal leen xeex bu bàyyi ko ci yàlla ak yonentam waajal leen xeex mooy yéen nit ñi kan ngeen di xeexal mooy seen borom lan mooy xeex ak seen borom lan moo sabab nit ki di xeex ak boroomam mooy saa booy jëfandikoo riba yàlla déclaré na la guerre moo xam nag riba bu ndaw la walla bu mag la ndax riba lépp sobe la bal amul sax bu ndaw walla bu mag mbokki jullit yi lu sabab xutba bi mooy dafa am benn soxna boo xam ni dafa jote ak boroom këram laaj ma moom ak boroom këram dafa am xutba bu ñu xutba woon ci danger yi nekk ci riba ca jumaay Kër Masaar yàlla dogal soxna si bi mu dégloo loolu mu ñëw ne jëkkër ji déglul jëkkër ji déglu extrait bi incha allah ba mu jeex ndaw si na ko ne ko ah lii oustaz bi wax day doy na waar te man gëm naa li mu wax te yow bokk na ci li mu wax mooy lépp lu aju ci banku riba jëflanteek moom dafay xaram ci jullit te moom dafa am ay immeuble yoo xam ni jege na juróom yoo xam ne ay banque yu mag la ko luwe xam nga ni fay bi du nekk problème day bari ne bi mu waxeek loolu jëkkër ji woo kenn ci boroom xam-xam yi mu ne ko loolu dara nekku ci maanaam yombalal ko ko jëkkër ji moo wax ak man lii ne ma mu woo beneen kilifaam beneen sëriñam wax ko ko kooku ne ko Umar Sall moom bu leen koy déglu dafa mel ni moom rek moom moom ajjana moomum safara mooy dugal ku ko neex mooy génne ku ko neex bi mu waxee loolu ma ne ko waa yow li la sa sëriñ tontu ndax mooy tontu question bi ma wax walla déet mu ne ma noonoo xam naa ni tontuwul question bi ndax wax na ni Sénégal bari na ay ustaas bari na ay borom xam-xam waaye dafa mel ni man li may wax man rek maa koy wax ma ne ko déedéet du man rek maa koy wax xëy na dangeen ngeen déglu ñu leen waxul li am wala boog am ñoo xam ni wax yenn bunt yi day metti ci ñoom ndax bunt bu mel ni buntu riba di ko waxtaane ci jamono bi ñu toll di ci wax li ci islaam wax su yàggee dangay mel ni agresseur dangay mel ni dangay ngay agressé <coughs> bëgg-bëggu nit ñi ndax xam ngeen ni nit ñi dañuy jaamu alal yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ni jamono ngi ñëw yonent bi nee na jamono mi ngi ñëw nit ñi dootuñu seet alal fu nu koy amee nu nu koy amee déedéet léegi li ñuy xool mooy nañu am alal rek mais contrôlé tuñu araam na wala dagan na lan moo tax parce que ay jaamu àdduna li mbokk yi riba wallahi ladi laa ilaha gayru du am benn borom xam-xam bu jàng tuuti ci téere yàlla bi ñëw di weddi lii may wax loolu moom du ngeen ko dégg insha allah du am kenn du ko weddi ndax lii may wax fi muy tege kenn du ko mën a weddi insha allah mbokk yi riba bokk na ci danger yi gën a xaraam yi xaram boo leen dajalee riba bokk na ci li ci gën a grave bakkaar yi tàbbal nit safara riba bokk na ci min achaddil muubiqaat al muubiqaat mooy bàkkaar yi nga xam ne day bëmëx nit biir jahannam yàlla nañ ci yàlla musal juróom-ñaar la aklu riba ci la bokk te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa da koo dëggal ginnaaw bi ko borom bi waxee mbokk yi riba day dindi barke ci alal riba sabab yàlla mbugal la loolu moo tax yàlla nee na ay yéen ñi ne gëm ngeen yàlla kon ñi may waxal ñi gëm yàlla ñoo ko moom ñi gëm yàlla te nekk ay jullit ñoom ñoo moom message bi su fekkee ni jullit nga bu gëmul yàlla message bi bokkuloo ci su fekkee jullit nga bu yore jikkoy naa fekk message bi bokk nga ci mais yaay xool noo koy jëlee ndax borom bi subhanahu wa taala bi muy wax ak jullit ñi ñi gëm la waxal ne eey yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla te bàyyi riba ak i def itam ittaqullaha wa daru ma baqiya min arriba in kuntum muminin ay yéen ñi ne gëm ngeen yàlla yàlla nee na ragal leen yàlla bàyyi leen riba ak i def itam su fekkee ni gëm ngeen su fekkee ni gëm gen charte boobu nag mooy mun nga nekk jullit te amoo gëm-gëm mun nga nekk jullit peut-être xamuloo mun nga nekk jullit alal gënal la ba nga nekk jaamukatu alal ndax wa tuhibbuuna al maala xubban jamma borom bi nee na lii ma leen wax adressé leen ko yéen jullit ñi jeexalee ko ne leen su ngeen gëmee la ca topp nag mooy fa in lam tafaalu borom bi nee lii ma leen wax su ngeen ko deful fa'danu bi xarbin min allahi wa rasulih su ngeen ko deful préparer leen guerre yàlla déclaré na leen guerre yéen ñiy jëfandikoo riba yéen ñiy lekk riba yéen ñiy jëfandikoo lu xaraam yàlla nee na déclaré naa leen guerre bettuma leen akbar fa adanu bi xarbin min allahi wa rasuli yàlla nee na préparé leen ngeen xeex ak man man ak sama yonent terrain bu leen neex ut leen fa adanu bi xarbin min allahi wa rasuli wax ji tàng lool borom bi wàcce waat ne nag di wa in tubtum su fekkee ne xamu leen woon ba jëfandikoo riba ginnaaw bi message bi egsee tey ngeen dégg ko ngeen tuub ne dellu ngeen ginnaaw yàlla ne falakum ruusu amwaalikum danañ leen delloo seen alal boppi alal ja laa tazlimuun wala tuzlamuun yàlla bëri yërmande du ngeen tooñ kenn du leen tooñ kon mbokk yi message bii ki gëm yàlla moo ko moom ki nekk jullit moo ko moom ki gëm dee moo ko moom ki yaakaar ni bis dana ñëw ñu dugal ko bàmmeelam moo ko moom message bi ki ko moom ki gëm ni ajjana am na safara am na mbokk yi boroom xam-xam yi wuute nag ci xeex bi yàlla xeex ak jaam waaw mbokk yi xeex ak yàlla wóor na la shakk wóorul am na ci boroom xam-xam yi ñu ne hal hiya bu qatlin aw tadmir waaw xeex bi yàllay xeex ak kiy jëfandikoo riga riba ndax da koy rey rey bu ñaaw bu gaaw wala da koy faagaagal am ci borom xam-xam yi ñu ne wala xeex bi yàlla xeex ak jaamam mooy di ko xiifloo teg ko ay coono wala xeex bi muy xeex ak moom mooy indi ay tremblement de terre daa di indi ay jafe-jafe ci dund nit ki bu fekkee société bi yëg dañ koy jëfandikoo yàlla indi leen jafe-jafe ndax xeex bi loolu lay doon wala walla xeex bi ay feebar la yu muy indi feebar yoo xamul feebar yu lay dal te mbokk yi seetlu leen borom alal yiy jëfandikoo riba kenn ku nekk ci ñoom ma ak feebar yu mu mënta wax feebar yoo xam ne hôpital da koy faj di ko fajal ay nit waaye ñoom hôpital du leen mën a faj te hôpital yi gën a cher la dem dañuy dem Europe dañuy dem États-Unis dañuy dem Asie spécialistes yi gën a mag ñoo leen di xool waaye du ñu mën ci ñoom dara kon ndax xeex bi yàlla xeex ak lekkatu riba ay feebar lay doon wala xeex boobu xeexu bopp bu ubbu lay doon am alal ba pare sa bopp ubu ñaata ñoo fi am alal ñoo xam ne vitre teintée la ñuy doxee ñemewuñu sax dox dajeeg yow ci mbedd et pourtant c'est des milliardaires mais ñemewuñu génn c'est des milliardaires mais ñemewuñu dox c'est des milliardaires mais ñemewuñu dugg marché te pourtant milliardaires lañ pourtant tooñuñu kenn mais lan moo tax ñemewuñu tiitaange boobu nekk ci ñoom ndax moom la yàlla di xeex ak ñoom ba du ñu wóolu kenn du ñu wóolu seen bopp wala am xarbun amma wala xeex bi yàlla di xeex ak ñiy jëfandikoo riba xeex bu doy waar la mbokk yi am na xeex boo xam ni ci nelaw la ko yàllay teg nit ki da ngay tëdd tëdd doo nelaw waaw amee xalaq bopp bu ubbu gént di tiit chaque heure ngay gis lu la tiital lu la jaaxal te doo ci mën dara ay seytaane di nekk ak yow di la dugal ci ay pax di la génne ay rab di la lekk lan moo tax parce que da ngay jëfandikoo riba mbokk yi wala xeex boobu boog sa noflaay la yàllay xeexal ba dootoo am noflaay foo tollu tukki fii tukki fële dem fii dem fële daanaka yàq xorondom yéenay yem ak alal ji li muy bari bëri bëri dootoo am noflaay doo ko am ci kër gi doo ko am ci say jabar doo ko am ci say doom doo ko am ci say bien chaque jour yaa ngi tribunal yéeg ak wàcc chaque jour yaa ngi xeex ci lu ndaw ndawa ndawa a ndaw a ndaw a ndaw te fekk milliardaire nga mais yaa ngi xeex ci valeur cinquante mille ak benn nit milliardaire nga mais yaa ngi xeex ak benn baadoolo ci lu ñàkk solo milliardaire nga sa jabar da lay yuuxu doo ci mun dara milliardaire nga da ngay dem di uti yeneen jigéen sa jabar ñemewoo wax boo duggee ci kër gi dootoo am jàmm say doom noonu ci sa bopp noonu lan moo tax fa'danu bi harbin min allahi wa rasuli préparé leen guerre ku ngeen di geeralal yàlla mbokk yi kuy xeex yàlla fan ngay taxaw ban arme nga am ci xeex ak yàlla amul benn bàkkaar bu yàlla déclaré borom guerre lu dul riba ku ko xam na ko amul benn bàkkaar bu yàlla déclaré borom guerre lu dul riba riba rek la yàlla ni fa in lam tafalu bu fekkee ne defu leen loole ñu ne ah mu ne fadanu bi xarbin min mbokk jullit da ngeen xam ni riba lu très dangereux la wallahi ladi la ilaha gayru yàlla nañu yàlla musal ci jëfandikoo riba yàlla nañu yàlla musal ci jëfandikoo riba ci lekk ko walla naan ko ku koy jëfandikoo doo am jàmm doo am salaam lan moo tax ndax danger la bu mag a mag ci danger yi mbokk yi xanaa xamoo jëfandikoo riba bul jàpp ni dafa simple de non simpleul ndax ci kabairu zunub la bokk borom bi ne ya ayuha alladina ya mu ne alladina yakuluuna riba الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس borom bi nee na ñiy lekk riba yowmal qiyaam bu ñuy jéggi siraat du ñu mën a jóg dañuy piqué crise dem ba yowmal qiyaam feebar amatu fa ñaq amatufa fa sonn amatu tuflit amatu fa ñendaxit amatu fa ñëpp wér lekkkatu riba ñëw yowmal qiyaam di piqué crise moom rek moo koy am yowmal qiyaam lekkkatu riba laa yaquumuun illa kama yaquumu alladi yataxabatuhu sheytaanu min al mas bu jógee ne kërëb daanu crise kat kat kat kërëb kat kat te yaa ngi war a jéggi siraat épreuve jéggi siraat mbokk yi nga xam ni loo dof dof dof siraat dafa tiim jahannam mu nekk buum bu sew di yëngatu nit ñi war cee jaar pour dem ajjana ngay piqué crise ndax di nga ci mën a jaar wax leen kiy piqué crise ndax mën na cee jaar même pont normal yi ci àdduna sax pont yi ci àdduna nga xam ne dangay ngay jéggi pour dem kuy daanu crise bu fa yéegee bu daanoo ci suuf la jëm astamaak siraat astamak siraat borom bi nee na lekkkatu riba du mën a jóg biir bi day toll ni étage ndax li mu doon lekk lewut daganut te dafa dekk yàlla da ko déclaré woon guerre laa yaqumuun illa kama yaqumu alladi yataxabatahu cheytaan min al mas day mel ni ku seytaane jàpp muy crise di kadd kaddi yàlla nañ ci yàlla musal mbokk yi riba day dindi barke ci alal borom bi ne yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat yàlla nee na day gotti riba riba bu tuuti bu duggee ci alal bu bari yàq ko ñamu riba bu duggee sa biir boo ñaanee du nangu ñamu riba bu duggee sa yaram boo feebaree kenn mënu laa faj ñamu riba bu duggee ci sa suuxu yaram safara moo koy dindi waaw yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci benn xadis nee na kullu laxmin nabata ala haram fannaaru awlaa bi bépp suux boo xam ne li ko saxal lu araam la safaraa yey xoola ngay liggéey ci riba di lekk loo xamante ni def xaram nga dajale ci alal nag def say investissement liggéey ak banque ut ci alal moo xam lu yee ko sa wala yeneen borom bi déclaré waat na yaa ayuha alladina amanu la taakulu riba adaafan mudaafa yàlla nee na bu leen lekk riba dajale yokk bëril tuutil adaafam mudaafa ay waay bu leen ko lekk ndax riba baaxul mu tegte ne wattaqullah ragal leen yàlla laallakum tuflihun mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne maa zahara fi lqawmi riba wa zina illa axallu bi anfusihim iqaab allah nee na amul benn société benn xeet bu ribaa di feeñ ci seen biir ba ñu koy jëfandikoo njaaloo di feeñ ci seen biir ba ñu koy jëfandikoo lu dul mbugalum yàlla wàcc ci ñoom européens yi gën a bon sax léegi nangu nañ ni système bancaire yi dafa baaxut juróomi at ci kanam gis nga banque yi ci àdduna bi yëpp amoon problème yëpp daanu woon lan moo tax te pourtant alal bi ngay dégg bari na lan moo tax mais li ñuy jëfandikoo riba dem na ba ñu dul jullit nekk milliardaire ñu ngi génn seen alal ci banque riba yi di ut ay banque islamique lan moo tax ndax xam nañ ñu taux d'intérêt bi ci nekk ak liñ ciy jëlee xamuñu nan lañ koy réglé muy na boo xamante ni en tant que yow nga ni jullit nga yéefar yi ci nekkoon xam ni bon na ñu cay génn yow nga cay des waaw ndax noppik borom xam-xam yi ci wax riba day tekki ne riba xaraamul déedéet waaw ndax noppik sëriñ fi ci riba day tekki ne riba xaraamul déedéet waaye waaye sëriñ bi bu ma tontu mukk ne ma sëriñ bi nee na kooku moom bu leen ko déglu ndax daa mel ni mooy man yoruma àjjana yoruma safar pare naa daal pour xam ne lu yàlla wax incha allah danaa ci tontu la ma xam danaa ci wax la ma xam waaye yow mi nga xam ne dangaa jël sa kër nga luyee ko banque xaalis bi la banque di fay dafa xaraam dafa xaraam sa kër luyeel banque dafa xaraam moog luyee dancine ñoo yem moog luyee ba nu ñu ko waxee baar ñoo yem boo luyee banque sa kër lu mu la fay lu mu la munti fay nga di ko lekk yaa ngi lekk lu leewul fa'zanu bi harbin min allahi wa rasuli yàlla nee na déclaré naa la guerre parce que yaa luyee sa kër banque muy liggéey lu xaraam wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan borom bi nee na bu leen dimbalante ci bàkkaar kuy def bàkkaar kenn du ko luyee kër kon bu yeboo nga am mille kër mais boo ko liyee banque yoo xamante ne système riba la alal bi nga ciy fay ko di ko lekk lewut dafa xaraam li ngay lekk di ko naan lewut dafa xaram mbokk yi ndax jaadu na ci jullit muy liggéey ak banque banque riba yi nag laa wax système riba yi daganul ci jullit amul benn bunt bu ñu la ubbil ci liggéey ak banque mu dagan ci yow mi ne bokk nga ci alladina amanu amul bunt amul bunt bu yeboo jàngal finance yaa xam génnal investir yaa xam la ma la ma ndaw si waxoon dama jàng ba pare te lii mooy sama métier ma bugg koo bàyyi sama papa ne ma kon ma bàyyi la ma ne ko na la sa papa bàyyi yàlla jàpp la moo gën sa papa jàpp la yàlla bàyyi la parce que finance bi nga jàng bu dee ci wàllu riba la jëm nga liggéey ak banque dafa xaraam mutlaqan amul buntu amul misaal amul neexal gëmal jëfeel gëmoo bàyyil en tout cas yàlla déclaré na la guerre boo ñemee nag yaa yàlla yaa xam loolu mooy wax ji na gàtt te leer ku mu neex man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur ku mu neex jëlal mbokk yi riba bi mu tasee ci àdduna bi lan la ñu yàlla teg bu demee ba boroom xam-xam yi nangu wax ne lii riba la parce que dañ lay mere buñ demee ba ñi bàkkaar léegi kenn du ko wax léegi ñu bëri ci borom xam-xam yi seen système mooy non bul gaañ nit ki quoi mun ngaa wax te doo ko gaañ <laughs> mais euh, riba xaraam na gaañ nit la kon daal Oumar Sall benn dof la boo xam ne moom danaan riba xaraam na day gaañ société bi quoi mais yow mi nga xamante ne ustaasu àdduna nga da ngaa plafonné da ngay tëb riba di ko wër di tudd leneen mais doo dégg jamais masala bu mel nii su fekkee nit ñi dem nañ ba wax lu mel nii yow mii borom xam xoolaatal sa bopp xoolaatal li nga jàng lan la maa ngi lay yóbbu ci benn xadis boo xam ne juróom-ñaari ijtanibu sab'al muubiqaat su dee boroom xam-xam nga buy wax ñu lay déglu nit ñi boole la ci boroom xam-xam yi réew mi di la déglu jàngal leen xadis bii rek nga noppalu du firil leen ko nga toog nga mucc ijtanibu sab'al muubiqaat yonent bi nee na moytu leen juróom-ñaari bàkkaar yi ba max nit safara bokk na ca wa aklu riba waxal ko nit ñi nga noppalu xam naa ne li mu wax sax du noonu mais dafa bari ñu fas loolu ci seen xol dafa bëri ñu fas loolu ci seen xol dugg naa ci benn banque euh, ndeysaan patron bi woo ma ci biir ma dugg benn jigéen la mu ne ma ah oustaz oustaz tàng nga de ma ne ko taalal kilim bi mu reetaan taalal clim bi mu ne non clim baa ngi tàkk ma ne comme damaa tàng damaa tàng bàyyi rek nga taal clim bi yokkal mu ne ma noo wax ma loolu mais oustaz li ngay araamal daa bari de ma ne ko non bul jum man araamaluma yàlla araamal dama la àggale message bi yàlla soo bëggee nga jël soo bëggul nga bàyyi en tout cas li ma lay xamal mooy maa ngi lay gëm loo ni lii ma la wax nii su la neexee jël su la neexee bàyyi fekk waxuñu woon sax ci wàllu banque nag mais dañ doon wax ci wàllu colu jigéen ñi wax ba ci ak mu ne en tout cas neexul mais dëgg la ma ne ko mu ngóog mais bu leen ma atte dama tàng wala dama yor man yoruma safara yoruma caabi aw ma bugguma kenn dem safara yàlla bu benn julli dem dem safara waaye nag ala kulli haal yàlla li mu wax nañ ko wax ci noppal mbokk yi xadiis a ngi nii bu tiitlu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na arriba salaasun wa sabuuna baaban aysaruha misla an yankiha rajulu umma la ilaha illa allah yonente bi nee na riba riba 73 buntu la riba salaasun wa sabuuna baaban 73 tomb la buntu buntu bu ci nekk riba la ba muy 73 wëññil yonent bi nee na bi ci gën a oyof mu mel ni góor jël yaayam sëy ak moom laa ilaha illallah bi ci gën a oyof mu mel ni góor guy sëy ak yaayam maanaam lekk alalu riba bunt yi benn par benn ba 73 bi ci gën a yomb misaal bi mooy mi ngi mel ni nga wëlbati sa yaay bi la jur di sëy ak moom wala iyaadu billah lii jàmm la képp kuy jëfandikoo riba xalaatal ci hadith bi ku koy lekk xalaat ci ku koy jox sa waa kër xalaat ci ku koy liggéey xalaat ci ku ci bokk xalaat ci mbokk yi bi ñëpp noppee ci wax dëgg yàlla indil nañu ay feebar yu ñu mënul dara corona ngi nii àdduna bi ñëpp am problème ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ku nekk ngi daw sa morom kenn ñemewul sa morom ku nekk a ngi takk masque ñëpp a ngi tiit bi ñu noppee ci li yàlla wax yàlla indi leen noppi leen ba faw dañu noppi ci li yàlla wax parce que nanguñ ko wax nit ñi mais nit ñi nañ leen wax li yàlla wax ñu bëri ci ñoom xamuñu après waa ji laaj ma ne ma waaw ginnaaw bi nga bi ma déggee lii werante wu ma ak yow léegi li ma ci jotoon a lekk su fekkee bàyyi naa ko ma ne ko fa in tubtum wa in tubtum falakum ruusu amwaalikum laa tazlimuuna wala tuzlamuun yàlla nee na bu ngeen tuubee la ngeen xamul woon dagan na ci yéen jël leen mais à part bi nga ma déggee tey ma wax la lii mu leer lu ci toppati day xaram ci yow mu ne merci jërëjëf yàlla na yàlla fay mbokk yi yombul mbokk yi war na ci jullit mu xam ne riba li bareek li néew dafa xaraam intérêt bancaire amul bu dagan amul bu dagan bépp commerçant buy liggéey ak banque billahi lazi la ilaha gayruhu da ngay daanu kenn amul garabam bépp commerçant laa wax buy jël alal ci banque di ko jënd ay diwlin ceeb saabu suukar di joxe na alal ji bëri tabaxal ba mu kawe ci suuf nga jëm ndax fa faazanu bi xarbin min allah yàlla nee na déclaré naa leen guerre waxal leen ma milliardaires yi fi nekkoon yépp di commerce fi ci banque yi fu ñu mujjee di jooy ñu hypothéquer seen kër banque nangu seen kër nangu seen alal ñuy wër ci rajo yi jooy man banque def na ma nangam wax leen ci nàngam nangam déedéet du banque yàlla moo xeex ak yow yàlla moo xeex ak yow indil lu la neex indil bato ceeb bato diwlin bato suukar bato saabu bato nangam na milliards yi bëri fu nekk tabax fa kër bis day jot sa lépp jaxasoo doo am avocat bu ko réglé xeex yàlla avocat mënu koo gis waaw fa in lam tafalu faadanu bi xarbin min allahi wa rasuli sa dërëm bu ndaw bi commerce ci mu lew dagan moo gën xanaa xamoo commerçant buy jëfandikoo lu lew dafa bokk ci ñuy dem àjjana te duñ sonn yonent bi sallallahu alayhi wa loolu la wax dafa metti alal dafa neex nga fexe ba segg alal ji di teg li lew di bàyyi li lewul kooku gor a koy def de gor gu ragal yàlla moo koy def mais ku fëqale ci alal dangay foog ni rek nàngam nàngam defal ba mu jekk bis day ñëw yàlla dóor ci kurpeñ tuy mu daanu waliyaasu billah mbokk yi islaam dafa xaraamal bépp bunt ci wàllu riba daganul ci jullit bi mu liggéey ci système riba daganul daganul yow jullit bi liggéey ci système riba moo xam ci banque la caissier nga liggéey ci dafa xaraam comptable nga liggéey ci dafa xaraam planton nga liggéey ci même kiy fobeere sax ñu koy fay dafa xaraam jigéen di ñëw ñu fay ko mu fobeere sit bi rek pour nit ñi ñëw taxaw fayi ko rek loolu muy lekk dafa xaraam mbokk yi kon riba mënul yomb mënul neex gardien bi lu ciy yoonam dafa ñëw di garder benn bërëb lan moo tax ñu ne li muy lekk dafa xaraam parce que li muy lekk ci li muy jóge dafa xaraam moo tax mbiram xaraam wala taawanu ala al ismi wal udwan ma ne la lii kenn mënu la koo daganalal ku la ko daganal na la indil texte doo ko dégg ci kaw suuf kon neexul bu dee da nga doon garder ci lu mel noonu dawal nga uti leneen bu dee da nga doon fobeere ci lu mel noonu dawal nga uti leneen bu dee da nga doon bind ay chèque ci ci yoo xamante riba la dawal nga bind leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laana allahu akila riba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayi wa qaala wa hum sawa yàlla rëbb na kuy lekk riba ak kiñ ciy lekkal ak kiy bind ak kiy seede kiy leb banque ma war a leb banque pour mu financer ma kër mu am waajoo xamante ne liggéeyam mooy ñëw taxaw libale projet bi même ki libale projet bi nga xamante ne banque ko financé nga ñëw defal garantie nit ki ko jël yow mi def garantie yaa ngi moom yéen a bokk àtte yow sa yoon nekku ci mais benn Samba Ndiaye daa ñëw bëgg projet pour banque war koo lebal banque yow la wóolu yow nga ñëw nga war a nekk seede bi nga seede ko pour banque mun koo lebal kër wala banque mën koo lebal oso wala banque mën koo financé projet yow mi toog nekk seede mooy wasaahi day hum sawa yonent bi nee na yéen a yem kon système bancaire dara daganu ci beneen bi yonent bi sallallahu alayhi wa nee na yaati ala nnaasi zamanun yakuluuna fihi riba qiila kulluhum qaala man lam yakulhu asaabahu min xuraab min xubaari jamono ngi ñëw nit ñëpp dañu lekk riba sahaaba yi yonent bi ñëpp mu ne ku ci lekkul poussière bi laal la kon yi hadis boobu Ahmad moo ko solo investissement ci banque yi ala kulli hal ñoo yem lan moo tax banque nekk doy waa parce que alal bi intérêt biñ ciy teg moo daganul ginnaaw tey nag ba nga déggee wax jooju baal xel amul benn lor booy am pour leb banque ñu mun la koo may dama bëgg a jënd kër am kër du force am kër du force mais il faut ma am kër banque moomu mën a lebal il faut ma nangam non non loolu du lay ci islam ñaata dund amuñu kër est-ce que am kër force la ñàkk kër te na lay am foo nekk déedéet jaaral ci yoon ñaanal yàlla tuubal liggéeyal yàlla ubbil la bunt insha allah rabbi waaye il faut banque rek laa mën a leb tey boo gisee ñiy dund Europe ñu bëri am jafe-jafe yu mel noonu loolu mooy danger bi nga xamante ni dañu koy dund banque nag bu fekkoon ni moom ci boppam dafa jënd kër am ay kër di ko jaay moom banque dafa am ay kër di ko jaay boroom xam-xam yi ne bu fekkee da ngay ñëw nga jënd day lay jaay comme nekkatul banque moom système da lay jaay léegi su boobaa dina dagal mu des nag léegi kër di jaay banque wax ak yow ñëw jënd ko ji la ko fayal teg ci loolu dafay xaram moo tax système mu riba dafa xaw a lëj jullit bi li koy dimbale mooy mu mucc maa ngi wax nag li yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax xëy na wax ji mun naa metti waaye ñu ngi wax ni alquran la ku mu neex nga wër ku mu neex nga dem gëstu li may wax daal mooy fa firru ila allah inni lakum minhu nadirun mubin daw leen jëm ci yàlla maa ngi leen di waat ci yàlla bu leen déglu liñ leen di wax alal bi lu mu bari bari bari bari bis dana ñëw danañ la laxas sang la sàng la dugal la bàmmeel laaj la du sa sëriñ moo lay garanti du alal bi nga amoon banque alal bi nga indi sa alal mu bari nga bàyyee ko sa njaboot ñu koy lekk yaa ngi leen di lekk loolu xaraam wala tajcalu maa allahi ilahan axar inni lakum minhu nadirun mubin bu leen bokkaaleeg yàlla maa ngi leen di waar ci loolu képp ku doon liggéey ak banque ci système boobu ne moytu su fekkee nag njaboot la boo xam ni waajuram alalu banque lay liggéeyee wala moom lay jëfandikoo di ko fayal ci njàngam na xam ni lii ko juram di fayalee alal bu lewut la moom na xam loolu mu des nag mën na walla mënut ndax yàlla ne na yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqaat yàlla ne na day gotti riba day yëkkati sarax kon nag yow doom bunt boobu na leer ci sa bopp bépp jur buy jëfandikoo riba yaa ngi lor sa bopp yaa ngi lor sa jabar yaa ngi lor sa doom yaa ngi lor société bi da nga sotti sa bopp essence taal da nga sotti sa bopp essence daal allahuma ahdina fi man hadayt wa aafina fi man aafayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma aatayt wa qina bi rahmatika charra ma qadayt fa innaka taqdi wala yuqda alayk innahu la yadillu man walayt wala yaizzu man aadayt tabarakta rabbana wa taalayt falaka alhamdu ala ma qadayt قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه innahu huwa alghafuru rahim